Adidas Arena rendez-vous est donné le 7 décembre fofo Paris une soirée de retrouvailles avec euh, la diaspora 여기서는 Cédas Arena muy ben salle bu arrondissement nek ci Paris ci ginnaw porte de la chapelle muy premier artiste africain plus particulièrement le sénégalais Wally Ballago qui doit y presser muy le 7 décembre bi ñu jëm 2024 and ci Kiss Production di Kiss Majorité le grand promoteur de Paris ak Wally le Ramadan au complet comme ni ma koy ce sera un événement multidimensionnel majeur au cœur de la capitale française de Paris donc rendez-vous est donné le 7 décembre avec Wally Balago Seck ci Adidas Arena and ci ki nga xamanteni moy Kisma Diakhaté képp ko xamanteni ni réservé sa ticket demal légui nga dem jëndi ji sa ticket lu tax nga war dem jëndi sa ticket parce que ce sera un événement multidimensionnel salle la nag boo xamante concert la suñu len né concert nak ça ne veut pas dire que dañuy dem ba minuit wala ba 23 23h30 da fay dafay fekk soirée bi dal di jeex tak len dang lañuy def fofu manam c'est un concert ouverture des portes à partir de 17h30 wa Paris sooy wax ak ñoom da ngay wax ak ñoom ci walu tardé parce que ñoo dàq tardé dañuy tok dal ba géej gi di fer ñi ce sera un concert ouverture des portes à 17h30 18h30 wali Sek day daal di commencer les premières parties à 19h wali Yek sur scène 23h soirée bi Ligia di jeex su guddi si ñu di koy soirée pour commenter after party kon rendez-vous est donné le 7 décembre faut ci Adidas Arena à Paris ànd ceeg Kisma Diarité wali Balago Sek le jeune pharamarène donc rendez-vous est donné le 7 décembre nee n'a le képp que amul ticket demal léegi léegi fépp foo xamante ne Adidas Arena nga di réserve ticket

c'est Awa restaurant Awakanté de dinañ la jaay li nga dal moy ce ticket mi ngi restaurant bu bees sax boo di la présidente des Faramareen diaspora Moko ko ubbi foofu ca Aubervilliers nga dem jindi ticket préparé le 7 décembre Qui di Balagosek Ballago Seck le la concert bo xamante bu inédit multidimensionnel donc rendez-vous est donné le 7 décembre fofu Paris Magadem dem restaurant Wiri Wiri fofu ci 12e arrondissement seeti Anta 3D mu daal lay jaay ce ticket maa nga dem Xelkom fofu Kisma 11e arrondissement mu jaay la sa ticket nga daal di préparé su dee da ngay joggé ci yeneen dëkk nak nga télé réserver sa hôtel décembre le hôtel yi dafay full manam full saison la nga réserver sa hôtel réserver sa santé Sako Afro mi ngi lay xaar ki nga xamante ni mooy may mi ngi lay xaar fofu ci restaurant Étoile d'Afrique ñom Safi ñi ngi lay di xaar fofu ngeen defar sen bop pap Samba Ladies Hair ñu defal la sa bop nga dem and ak Wally Balago Seck maanaam xoolal bëggee ba fajar rendez-vous est donné le 7 décembre à Paris Adidas Arena avec wali Balago et Kisma Diakité mu donal nak benen sponsor officiel bu ñu permettre ñom suñu émission